mbokki Sénégal na ni moom moom arène nationale saa bu fa wootee nga xam ni daan naan woote na arène nationale mbokk yi la ñu ne ni mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom dama ci sargal ki nga xamante ne ni mooy borom coalition Sénégal 2035 dama ci sargal ki nga xamante ne moom la ndawi Sénégal bëgg kookal la ne Mambay Niang candidat la mairie de Dakar borom coalition 2035 mbokk yi moom la Fallou Ndiaye di sargal ci bisu le 9 fan ci arène nationale imam mbay am nga lu rëy ndaw ñi ñoo la sargal ndax kat ndawi Sénégal ku nu bëgg ba sargal la am na loo xamante ni nga ko mbokk yi indil ko combat bu mag bi nga xamante ku doon amateur bëgg nga ko kookal la ñu ne Vieux xale bi nga xamante nii moo nekk ci Kër Massar xale bi nga xamante moo nekk ci école de lutte Boy Sey moom la jël boole koog fàtte waaye li ci gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bii combat spécial bi jar lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri ngoone mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé mi lébu bi bébé wulli bu boowal dina ci laale ak am lycée uncaa dina ci dajeeg loo karim caatu puyool bi dina ci bëree ak guy gi deux mbokk yi de kat moo xarañ saar la caatu jolof dina ci laaleeg armée bu ndewraan mbokk yëlli dina ci dajeeg kama junior ay dara moom ak ñang bawal yegsee arène nationale xam ni waa ji yegsi na arène nationale yamu la de eh akay yàqamti nga fa yegsi ndax saa yoo fa ñëwee def lu fa kenn musul def mbokk yi bisu la neuf invité d'honneur ba dina doon ki nga xam ne le la ñu ne du jànjeko mi bëgg làmb jàppale làmb te it képp ku jug ngir jàppale làmb mu jug jàppale la kooko du jànjeko mbokk yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante ne nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale daal xamal ne def nga lu rëy ay la a arène nationale Ndiaye production yaa wóor mbokk yi suivre tv point com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ñu ñëwaat seet si wuli mu am combat le 9 dimanche incha allah ak Ndiaye production moo la bëri ak am lisa école de leen Fadam ngeen gis fi nga xamante ne fa la jóge moom wuli ci defet digganteem ak Adama Diouf mu instant bi nag dafa mel rek wala moo nekk di entraînement nag entraînement yu sérieux ma ñu waxtaan ci combat waaye waxtaan tamit ci combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier bi ak li nga xamante ne moom la nit ñi di wax pour l'instant maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar Saliou Diouf. asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla sunu borom bu baax Lamine di santaat yàlla sunu borom di ko ñaan na ma may ndam yàlla mi nga xam ne moo yor ndam hmm. te ku ma may ndam nga am ko man maa ngi koy tala sama loxo di ko wax ne fii laa ko wooye woon ca Kébémer maa ngi koy woowaat fii sa micro Lutte TV bi yàlla na ma suturaal dimanche mu may man ndam ci kaw am lycée ñu gën koo xam ci jibrilu si jibrilu si si mooy turam dëgg di wax ñëpp képp ku seetaan vidéo bi na ma ñaanal ndam parce que bi yoon damaa soxla ndam lool lool lool parce que dama jóge ci benn combat boo xam ne dañu ma daan ma war a dellusiwaat xam nga wala wanaat Sénégal yi ne mbër la kon maa ngi sakku ñaan képp ku képp ku seetaan vidéo bi wala képp kuy doomu aadama muy góor mu jigéen muy mag muy ndaw na ma ñaanal ndam dimanche ma am ndam ci kaw am lii sa si di ñaan yàlla moo mbay nam di ñaan Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bak demoo Njaay laa jur doom ma dippe ko Muhammad kon Seydina Muhammad tur bi ma la dippee maa ngi lay ñaan sa barke yow yaay xayatu yàlla nga fay ma maam ndam ci kaw jibrilu si turandoo wi ma la dippee maa ngi doog am combat boobu léegi Seydina Mohamed yal na nga ma may ndam yal na ma yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed yàlla mooy may ndam to yenent bi mooy xaritam kon maa ngi ñaan yàlla yal na ma yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed ci barke Mohamed rasulullah sallallahu taala sama am ndam dimaas ci kaw am lycée dibli russi ok na solo nan nga def xam turam di sant sama ñaari waajur sama ndey ak sama baay xam nga le 10 janvier mooy sama anniversaire tombe ak bi bi sama baay gënee àddina kon maa ngi ñaan yàlla ma yàlla suturaal may ma ndam ci sama barke baay sama barke baay sama. liggéeyu ndey li ñaanal sama yaay mu yàgg fi di sant sama sëriñ sama wasira sëñ Modou Xabaan Mbakke di sant sëñ Abdou Karim di sant sëñ Abo Mbakke di di nuyu sëñ Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg ànd ak wér di sant sëñ Muntaxa mu ndaw turandoo sëñ Muntaxa mu mag foog ma dem fa sëñ Muntaxa sakku ñaan ci moom di sant waa Touba ñépp saa Touba maa ngi koy nuyu bu baax bu Modou Lo saa Touba Samba nduur Touba dem woon naa ko maa ngi koy sant bu baax Samba Ndour foog ma dem fa. ak saa Touba ak sëñ daam bu ne Touba sëñ bu mag la sëñ daam xaytu Gris Bordeaux ak Maodo képp ku nekk ci Sénégal waxen waa Tiwaawoon di sant nag waa kër Baye Alla Ndiaye Aziz. Aly Ndiaye Massata Aly Ndiaye Baye Ndiaye Babacar njaak Badou Aly Baye Abdou Aly Zoro ak Xalil képp ku waa képp ku Baye Aly nga Ndiaye jur maa lay sant di la gërëm samay nit la ñu di leen may jàppale. di sant nag fii may entraîné muy fitness vert fitness vert papa bi comme moom muy njaw si mois doo fay dara man képp la ko fi defal nag. fii paiement bu yomb la chaque weer vingt mille franc ngay fay mais man ne ma yow maa lay fayal sama xaalis Moustapha maa ngi lay gërëm bu baax Tafa maa ngi lay gërëm bu baax Tafa jàpp na ci ci entraînement bu baax a baax dama daanu mu jël ma asane kay entraîné fii Tafa jërëjëf Moustapha Thiaw kot su mu ngi nii sama kot su la Lamine di ma tëg lu miti barke sëñ Saalew di ma tëg lu miti bu miti li ma entraîné quoi bi mës barke Mouhamed du caaxaan damay gën ci Seydina Mouhamed gëj naa ko antenne ca bi pato barke Mouhamed li ma antenne nii maag li jaan antenne ma ko maag am antenne wu ma ko li ma antenne bi gëj naa ko antenne yëg duun gëj naa ko def ñëw fii musculation physique xol bii lang. xol bi xol baa ci biir tut mu dagg. ban côté. fii lay nekk waa du fi. fii ci ci xarante yi mooy le les poumons c'est le le cœur. xool nekkul la jërëjëf beneen kastu bi sama deuxième kastu bi booba adjumé Moustapha ah adjumé Lamine maa ngi koy gërëm. ok nga def ba xam turu am léegi. CNC la ma damaa jëral ma dem ba CNC jël licence ci kaw xam naa atam xam na suuf mu juddu xam naa li fa am. moom moom moom moom. lan moo tax nga bëreegul moom ñaata combat la bëreegul. moom xaw ma ko sax xam nga moom li ko bi tam ñor ma moom moom moo ma laaj moo ne fa fa fa Fallou jox ma wulli comprend nga xëj na dafa gis que ne Adama Diouf daan na ma moom mu ñime ma. jàppul la bañ nga. te barke Mouhamed du ma sax moromam. est-ce nooy neex. du ma nooy neex de Lamine est-ce xam nga ne depuis may bëre ba tey. ñi ma daan ci lam ñëpp ay champion lañu man kaay de bari na defet mais ay champion kese kese ñoo ma daan mosoo gis beneen pox pox ci booy nekk fii naan daanawule amut limal man ñi ma daan ñëpp leen xam saa Thiès armée Fourouz Tidiane Faye Tafa Mbër Diène Kayré Yékini Junior ah Jalaaw quatre maa ko daan daan Ousmane Toukloo daan Cheikh Niang. ah yoon. ñeenti yoon Cheikh Niang tut ma ko barke sëñ Baba gi tut ma rëy ñeenti yoon laa ko rëy Cheikh bon ñeenti yoon laa ko daan waa cinq minutes la. am lycée ko dama koo bëgg a wu won sax moromam bu ma fekk may beeg am lycée te war a yedd moo tax dimanche ma bëgg koo won quoi bi dama see pare lu rëy entraîné. ba pare nga mucc ñaanlu lekk laa ko du def su ma ko jàppee lekk laa ko du def. maanaam. lekk laa ko du def. lool. mooy bu ma ko jàppee di ñaan samay sëriñ yi may ñaan aussi Lamine Thierno Ahmed Serif Sidaati ay bi ne xayma. Grand Dakar sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax sa Sarif Sidaati Aydara seex na seex sat bu mooy maamam dem naa fa Sarif maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. léegi kon rendez-vous bi le 9 la sa diggante ak Amly ci grand combat bi war dox ci diggante Dacia ak Youssou Ndour bu tënkee. di gërëm Ibrahima Diop. gërëm le 9 ku baax nga yow nga bëgg ko dafa ma barke Mouhamed nit ku baax la. jabaram na ma ñëpp baal. jabaram dafa ma woo keroog ne defal sarax bi defal sarax bi mm, mami la nu mu sant ma mami mami Joob rek mën ta bañ Joob madame Joob jabar Seri Ibrahima Joob mami ku baax la yëkkati xaalis ne ma maa la ko jàppale ci ci bi waa ne nee na yow may mbiram xam nga yooyu Lamine dafa tax may góor góorlu ah, nga góorgóorlu di entraîner Bamba moo tax bi yoon gars yi damaa bëgg ngeen gis wuli niwluk kon le 9 la incha allahu rabbi mais nga gis combat bi fi am samedi keroog diggante Balla Gaye ak Bombardier ban jàngat nga ci. jàngat bi ma ci def combat bi bari na coow ku ne ngi wax. avant coow de combat bi ci boppam ban jàngat nga ci def. combat bi li ma ci jàngat mooy Bombardier ñëw na pare na bala Gaye ñëw na pare na combat bi bëre bi nga bëgg ma wax la bëre bi coow li bari na. ñu ne Balla Gaye entraîné wu ñu ne Balla Gaye na mais Balla Gaye ni mu bëree baaxul ni mu bëree baaxul ak même bu entraîné woon at at ni mu bëree Bombardier fekk mu ko bëgg du ko daan ci àddina Bombardier cent cinquante kilo xaw ma nga bëgg koo jàppal ma jàpp kaay ma wax la ñaari mbir Sénégal Tapha Tine Bombardier kuy bëreek ñoom bëgg naa daan doo wax jàppal ma jàpp ba Tapha Tine xoolal ñi ko daan ñëpp balaa moo jàpp nga koy daan Bombardier kan moo ko mos a daan ci mu jàpp même Yékini Yékini non Yékini sax jàppul mbéy moom da ko da ko xam nga Yékini comme Bombardier la mel moom dafa foore kaw Bombardier dafa foore kaw Balla Gaye waru woon a bëreek Bombardier ci kaw Bombardier kaw da ko foore kaw ba pare ba Balla Gaye dafa bëri ci kawam lu yàgg day day sonn day dee. bi nu demee ci premier round bi Balla Gaye da daanu ci saaku yi laa bi yàqu na ba pare jëg naa ko wax Balla Gaye aussi dafa encaissé ku yu bari ci biir combat bi Balla Gaye sax bala bi da mais kawoon na bu yàgg encaissé na ku yu bari ci Bombardier foofu la bëre yàqu Balla ni mu bëree ak Bombardier baaxut loolu yëpp Ahmed Sène ak ci mën a bëre loolu Amed Sène Amed Sène dafa xam ni muy daane luur xoolal ma ko ci lay topp Simel Faye dafa mën a bëreek luur Balla Gaye mënu bëreek luur parce que li muy bëree nii ak bëmba daanu ko non bala ma ñëwaat ci combat bi kon Bombardier mi muy avertir Eumeu Sène te dara xew non attention nag Bombardier nan na def doucement aussi ci combat bi Amel seen mën na ko daanaat parce que Amel Sène def fa moo Bombardier ñoo maase ci làmb te te Amel Sène dafa nandite mën na koo naxaat daan ko non du bala du bala wax dëggu si na wax dëgg bala nag mën na bëre champion la mais mënul bëre pois lourd ah man bu li ma gis. ok loolu am na solo combat bi comme ni nga ko waxee rek jeex na coow li bari ñii di wax gauche ñii di wax droite. commentaire yi nit ñi di def yow tamit ban jàngal nga ci. non mun na xare ma trop. billaahi mun na xare ma trop sama nokk ci mais dafa supporter mu nekk Aziz Ndiaye man Aziz xam naa ko mbir yëpp lay jàppale. Aziz li muy def ci Balla Gaye ah ku ne bëgg naa am ku mel ne Aziz Ndiaye sa kër xoolal Aziz macha allah milliardaire mm, Massata Ndiaye seen mag macha allah. ay kilifa yoo xam ne boo neexu nu toog ci kaw stade bi mais bàyyi seen njaboot ànd ak yow nekk ci làmb ji ànd ak yow ba ci géew bi maa ngi dégg ñu bari naa Aziz xamul làmb barke Mouhamed wax ñu dëgg dama ko wax dafa doon Aziz Aziz tamit nekk fasu tranquille yow Lamine dafa doon ñëw man yëkkati vingt mille francs teg ko ne ma dooma daan Aziz kenn tax ko bëre barke Mouhamed Aziz entraîneur Balla Gaye Lamine Golo sama xayta mais ay saako gën xam lam ma la ñu naan Aziz waru dugg ci biir géew bi Balla Gaye xam na ne Aziz moo ko sax barke sama Balla Gaye dàq koo bëre mbër la dafa mën a bëre xale la barke Mouhamed mosuma ko daan man dañ doon bëre boobu laa gën a xale ñuy bëre damay daan nu ma ko nu nu ma neexee ba pare bi am ma lam la xam man mii sa combat damay woo conseil ma defal lii defal lii defal lii kon ma ne ko naan Aziz wata dugg ci géew bi xamul làmb ak xaalisam layoo c'est faux nañu béy Balla daanu ñuy tumal Aziz may lancer appel aussi Balla Gaye 2 bu ko kenn jaxaseeg Aziz li mu am na sant yàlla ku ne ko bëgg amu ko barke Mouhamed mbër bu sañoon am ku mel ni Aziz barke Seydina Mohamed tafaatin bu amoon Aziz lee mu tee loolu doy de sànni bi loolu moom lu ma leer la. Aziz Ndiaye Tapha Tine bu amoon ku mel ne Aziz di son ci moom di financer ci moom lee mu tee doy de sànni coow lee bari gars yi di wax gis nga gars yi di wax yëpp boo amee combat kenn du la may dërëm. Aziz ba bala ngay amee combat barke si jar na ko cent millions pour ndam dafa bëgg victoire dafa bëgg ndam man mii rek su ma amee combat lu ne da ci def. pour bëgg maam ndam kon kooku du ko yàqal balagay lay laay évolué laay avertir bu ko kenn kenn jaxaseeg Aziz même Aziz Ndiaye aussi buy dégg waxi mbojo mbojo yii gars yi dina soxor rek soxo yi ki say wax ba keroog waxoon naa ko su Balla Gaye daanoon kenn du wax entraîné kenn du wax Aziz Ndiaye bu Balla daanoon nga dégg ñëpp ne Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye daan ñu naan Aziz Ndiaye barke sëñ Saliou te man forme bii Balla Gaye andi d'accord contact yi manqué na mais moo gën a baax bi mu daan Yékini moo gën a baax bi mu daan Tapha Tine maa ngi fa woon ba Balla Gaye Yékini Balla ñëw indi biir kanam gi toll ni saal bi te bi mu daan Yékini kenn waxul Tapha bi bi mu rek bala bala àndut état te bi mu daan Tapha kenn waxul mu andi Bombardier oh, ba pare gars yi xanaa dañoo xeeb Bombardier yow Bombardier kenn mënu ko di ponkal mu toni Bombardier balaa boppam ngay bëre nag ku ne àndi sa mbër barke Serigne Bamba ku mu mën a doon ku andi sa mbër bëreeg Bombardier ba mu ne yàgg bala deux minutes nga dee antenne at kontakal at bala ngay lii mu andi daan na Bombardier dinañ wax kay xëj na li mu bëree moo baaxul. li mu bëree laa d'accordul li mu bëree Bombardier booy bëree moom doo wax jàppal ma jàpp bale ay boot yow tam fa mu yow Balla Gaye xaat naa boot Bombardier ci àddina boot wax dëgg Lamine tam non yu daal Bombardier Bombardier yi ko daal mooy për mu rep mbala nga jàpp tànk ne ko xob song bàyyi ko ndax waaye Tapha kena kenn bu ko du doole doo na ko ba bëgg a dee waaye mën ko daan mën ko daan ba ba ba neexul daan gars yi nañu arrêté. gars yi nañu bay bay Aziz ak Bala man Lamine gis naa sëriñ yu bëri li ñu bëgg fi mu mooy yàq réaction Balla Gaye Aziz ma xalaat dara. seen diggante sëriñ yu bëree bëri ñu ngi taxaw pour yàq réaction Aziz ak Balla Gaye ak ay nit yeneen yu yu bëgg a yàq seen diggante. ci baatin yàq ko ci baatin. ci baatin combat bi def ci bëri sot. léegi lu mu di jëriñ loolu. yàq ak diggante. soxor kay bëgg maa ki yow mi sa ak li liw jaan d'accord léegi kenn naan yaa ak liw jaan da nga a fay na koy ànd. daal léegi bébaay daal la mi nag boos Sénégal a bëggul kuy ànd barke Sëriñ Bamba boo àndee man léegi ñu naan may wuli wala ma daan nga dem ci li ñu ne li liiru la faral ab foto ak di jaxase Aziz waaye nag xamuñu ko sëriñ bu ko ci mooy tuwul bay boppam de barke sëriñ Bamba baywut boppam sëriñ su bëree bari gis nga balagay kaw bi daf ci bëri sot dañ koo sot daf ci bëri sot sot su bare bëree bëri xam nañ dara ñun ñoo ko sot sot nit ñi ñëpp sëriñ su bëree sot ko gars yi loolu loolu la war a wax mais war ñu wax ci entraînement bi sot gi waaw di bëre ak yow samber nga sot yooyu yooyu lañ war a baax mais di ñaan rek Bomba ji aussi ku baax la man sama xarita keroog dégg nga mu ne yaa ngi liy jaar yow lay faral ma ji sama xarit la nit ku baax la mais Sénégal man bëgguma ñu yàq diggante bi nag benn bi laay walay taala neexuma quoi Lamine bëgguma nu yàq diggante Modou Lo ak ay xaritam bëgguma nu yàq diggante Aziz ak Balla Gaye bi Balla Gaye daane Modou kenn waxul Aziz dara mais man d'accord ma Aziz gën ay centaine de millions gën ko sarax Baye Ndiaye dem Nigeria Burkina Faso fépp dugg avion wàcc ànd ak làmb ji yow nga daanu ñu naan ñoo mais Aziz dina ànd ak Balla Gaye Aziz barke Mouhamed xam naa sur lam bi ba dina woon sarax cent millions ne barke am ndam mu def ko ci pour barke am barke si gañoon la man dama ko yërëm dama ko biiram parce que xam naa ne combat bi daj na ci ay coono yu mittee mittee mittee mittee mittee mittee mitti mu daanu ko naan Aziz Ndiaye waxtaan ak ñoom xam nga Balla Gaye ñan laay wax mu bay leen Balla Gaye aussi il faut mu sensé baa booy yow laay wax liiru jaan dafa buuju Lamine Golo Badara jël leen seen mettukaay rax bi dafa bari rax bi def dafa bari ci Balla Gaye Balla Gaye gis si na yi fanaanoo sooy ba ba set non dina ba Balla Gaye képp laa gis di bëri si ànd ak ay ay gaayu kii ah sama benn maraam woon Balla Gaye rek laa gis kuy bëri si ànd ak ñëpp ay si na peur ba ci géew ba ànduma ci liiru jaan baa yow laay lancé appel baa jëlal seen mesukaay ci si bala gay barke sëñ Bamba Mbakke bii yoon même même na jëlee mesukaayam barke aussi Lamine récupération bi doyul na ko assise yóbbu Tiwaawoon wala fee nga mu ba ba ba mu te ko ma am dallu mais ku ne li ma gën a naqari Balla Gaye même buy lekk sax gis ko ci télé yi buy sangu sax ñu gën a ko lu muy def ñu gën a ko si nat waaw fu ne fu mu aw nu gën a ko loolu c'est pas c'est grave ba ci Balla Gaye képp laa ko gisee ci mbër yi ba mbëjë combat bi yëpp gisoo kenn gën a ko fen këram. kon seen nañu arrêté. baaxul nañu arrêté. ku bëgg bës ku bëgg gisee man bës da nga sa bopp mais doo bëgg bës si nit. jar na ko vingt ans prison. jar na ko barke Serigne Bamba non lii liiru dafa bëgg bala vingt ans dafa tuuti moom na ko def quarante ans mu yàgg fa moom itam bëgg na magat moom laa bëgg sax na fi rëy nit lu tëj ko quarante ans bëgg na nekk paa bu bu bu bu gaaw bu xamee waaw laa bëgg liiru jëlal sa fetel rëy. nu tey la 40 ans boo gënee bijaaw na di kibir kibir gaa yi doot <laughs> na xame jaata ko. liir daa mën a dundati am na 60 ans. <laughs> waaw 60 ans day bagat bu gënee bu gënee di bagat <laughs> fekk doomi sëy. liiru am na lu ko metti sa xarit nee na Bombardier tas dafa tas yaakaaram ndax dafa waajaloon bëgg yëre yi mu sol ko waaj. dina tas yaakaaram ndax daa bari wax moom itam kenn raw ko moom moom sax la bëggee war a jëkk a defa dafa bari wax. ku muy bëreet muy wax rek li daan aussi il faut nga arrêté sa wax gi yow wax rek nga mën doo bëreet daan ma may xam naan victoire bi ko victoire gabi bala <laughs> te yow <laughs> kon kay victoire bi neex na yow du jox la victoire gabi kontaan ñu jox bi ba ba victoire nga koy saboté foog ba ba ba bëjee tas sa yaakaar liiru dangaa bari wax dangaa bari wax di wax lu jotagut di xalaat bëgg a doo ci victoire ab jàmbur naan di naan li ma yaakaaroon looy yaakaar doo yaakaar sa doole dem ba bëre nga yaakaar ci Kaba Balla Gaye sa yaakaar il faut ñu tas ko sa wax dafa bari sama xarit nga may dama lay wax dëgg yow itam lu yàqal ba Balla Gaye ci wax yawa dafa bëgg Balla mais wax jee ko ba bëgg na ko mais dafa war a noppi moom bu moytuwul man maa koy rëy sax man. barke sëñ Baba lii daan non épargne toro la Balla Gaye sama rak ji sa toro. Balla Gaye cat nga ko daane ñaari nit wax yi kat yu liir jar ak ñeneen ñi. kontaan naa ci yow liir dañ ko tuddee drapeau le huit Jamaïcain moo war a ñëw tuddee ko làmb combat Pape Ndoye ak Takheb. waaw oh, dama am combat kon ma ñëw ànd ak moom ndax nit ku baax la aussi nit ku baax la di ko encouragé di ko encouragé itam na na wàññi wax ji rek laa koy wax na wàññi wax ji aussi silence xam nga. drapeau bi aussi vraiment ni ma am combat moo tax ne kon damay ñëw ànd moom sama nit la sama xarit la waaw jamay jamaykee aussi li mu def macha allah di di waat ñëpp ci combat bi na ma si ñëpp jàppale na ma ñëpp ñaanal di di gërëm Masata Ndiaye Aziz Ale waxaat naa ko Pape Matar loo directeur commercial huile j'adore ku baax ah di gërëm Djibril Thiaw maire Refane di ñaan waa Refane ñëpp nanu ànd ak jib Thiaw wooteel ko mu gañe waat coow li dafa bari Refane nañu bay affaire yi ma ne Lamine man maire laa bëgg na nekk mais bi ma demee boo xam ne Djibril Thiaw bilaam du doy na ma ànd ak moom di wax waa Refane bu kenn dof bu nañ nekk nit nekk ci ginnaaw jib caw wooteel ko. mayel di di gërëm. Ibrahima Diop di gërëm ba Basirou Ka donc gërëm ko rek da nga ko war a jëmee garaaw. sama waay la sama waay la at na am solo. di gërëm maître Moustapha Dieng sama avocat ku baax a baax maître mooy sama avocat nit ku baax maître Moustapha Dieng damay jàppale. fi may jeexale Saliou Khoule maa ngi lay sant di la gërëm Saliou Khoule kooku moo bëgg Balla Gaye ci te sinap du vidéo gars yi il faut nga mel ni Saliou Khoulé du wax du sinap discrète barke sëñ Bamba samedi ba ñoo ànd astafurlah ajuma 31 sëriñ bu mu xam dem na fa Saliou Khoulé sëriñ bu mu xam woon na ko pour bërëgee am ndam Saliou yow maa ngi lay ñaan sama combat bi Lat joob directeur LONASE maire de Golf yow laa koy bayal xam nga ki may bëreet gàddu ko Ahmed dara nga ne ko Ahmed Aidara dama koy duma ba mu réglé Lat joob gañ géej waaye li neexut yi Lat Diop maa ngi lay ñaan sama combat bi nga jàppale ma ci nit ku baax la di ko ñaanal aussi yàlla na ko yàlla may ndam golf Lamine Lat Diop ku baax la bi yoon nag Salif Khoulé yow laa béy ak joob Diop yow laa béy ak joob nga wax ko mu jàppale ma ci sama combat bi parce que yegg na koo def di ko ñaanal aussi yàlla na ko yàlla may ndam la le 23 janvier mu nekk meeru golf waa golf góor jigéen magak ndaw na ñëpp wooteel Lat Diop boo gisee may def li Lamine Lat quoi bu ma am damay jàppale kon tam lii mu am combat la may propagande golf na ñëpp an dooleel Lat Diop mu gagné quatre-vingt-dix pour cent te bu ma amee ndam maak moom ñooy an golf campagne ak Saliou Khoulé kontaan naa ci yow yaa baax yaa gore yow it yàlla na fi yàgg liiru jaan wàññil wax ji il parle trop le fou de mandat vraiment yow itam da ngaa mel ni ku bëgg a dof il faut nga bay xa bala nga il faut mu xam ne liiru jaan aussi waxam ju bari ji rek mën na ko yàqal mbokki Sénégal la numéro un yegg si waat na waa ji ñëwaat na ki nga xamante ni moom moom arène nationale saa bu fa wootee nga xam ni ndaanaan woote na arène nationale mbokk yi kooka ne Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo ñëwaat bi su le 9 janvier 9 janvier di bis bi nga xamante nii mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom Ndiaye production jël ne dama ci sargal ki nga xamante ni mooy borom coalition Sénégal 2035 dama ci sargal ki nga xamante ne nii mooy xaritu ndawu Sénégal dama ci sargal ki nga xamante ne nii moom la ndawi 2035 mbokk yi moom la Fallou Ndiaye di sargal ci bisu le 9 fan ci arène nationale ay Mame Mbaye am nga lu rëy ndaw ñu ñoo la sargal ndax kat ndawi Sénégal ku nu bëgg ba sargal la am nga loo xamante ni def nga ko mbokk yi Fallou Ndiaye indil ko combat bu mag bi nga xamante ku doon amateur bëgg nga ko kookal la ñu ne Vieux xale bi nga xamante ni nii moo nekk ci Kër Massar xale bi nga xamante ni moo nekk ci école de lutte Boy Sey mbokk yi moom la jël boole koog Youssou Ndour mu ko fàtte waaye li ci gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bii combat spécial bi jar lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé bis mi lébu bi bébé bi mbokk yi wulli bu boowal dina ci laale ak am lycée uncaa dina ci dajeeg loo karim caatu puyol bi dina ci bëree ak guy gi deux mbokk yi fils de kat moo xarañ saar la caatu jolof dina ci laaleeg armée bu ndewraan mbokk yi dina ci dajeeg kama junior ay dara moom ak ñang bawal ñoo ki nga xamante ni ni moom mooy la ci accès arène nationale xam ni waa ji yegsi na arène nationale yabu la de eh aka yàqamti nga fa yegsi ndax saa yoo fa ñëwee defal lu fa kenn musul def mbokk yi bisu la neuf invité d'honneur ba dina doon ki nga xam ne mooy le président des amateurs de lutte kookal la ñu ne du jànjeko mi bëgg la kooko du jànjeko mbokk yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale Imam Mbaye bis bi nga am réy de làmb de ku Sénégal xamal na def nga lu rëy ay le neuf arène nationale Ndiaye production yaa wóor